a h 48 minutes <laughs> RFM matin di way ba léegi générique bi dikk na kon xalaas tàmbali na ma Mouhamed Ndiaye maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo nuyoo bu baax maa ngi lay delloo ziar mhm. nuyu auditeurs yi fay nañ la sant leen gërëm leen ziar leen xam naa dégg nañu lu doon yëngu ci suuf xam nga boo xëyee fajar jox la am bloc foo jaar danga koy dajji xam enveloppe lu mu waaw mais enveloppe gii ma seen nii hmm. bu dee copain bee moo la ko jox hmm. ñaari carton invitation moo ci nekk <laughs> kon baax na <laughs> kon baax na dinaa ko lijjanti daal en tout cas mhm. mais yaa ngi si jàmm joon ak muñ alhamdulilah démb am na la digoon de waaw mooy waajooju nga xam ne dañoo jam fasam dama ne femme coupable moo ko jam waaw ay fàttaliku foofu noonu mhm. euh, ci kanam waaye beneen ngi boo xam ne xam nga Cheikh Anta fan yi gëj nga koo dégg. waaw c'est vrai. daa am ci lu mu nekk. d'accord waaye la mu nekk li muy xat xat xat xat. jox nañu benn bagage. mu di. yaa ngi fàttaliku ay jamono am na benn femme boo xamante ne ji. dañu wax ne muuma la. waaw daa am jëkkër waaye kër ga mu nekk gars yi bëgguñu ko. Mhm. ba mu ne woon day dem. te sax mhm. dafa tolloon diggante maanaam. waaw dafa wan noon lor. waaw daa di riir ay mbokkam ñu fore ko boori Touba jam côté garage daara Jolof. Mhm. dafa demaat. demaat na ca la ca la ca la ëmb ba gën a sore. Eh, eh, eh, waaw waaw waaw. ñu déglu. ay ca la neexee. maam Diarra Seye laa tudd. ban quartier nga dëgg fay waaw xam nga jamono yaa fi woon benn muuma bu demoon sëy ji amoon problème ak goroom magam mhm. dafa wax ni xale bi dafa naqari dafa naqari boobu voilà léegi ba mu euh, génnoon ñu wër a wër ba de ñu mujjoon ko gis euh, Touba Mbacké waa Mbacké yi woote ci euh, sama numéro ba ñu mujj koo jot léegi ndaw si dafa demaat waa dafa demaat ñu naa dañoo xëy rek ndeket moom teel naa jóg dafa mel ni daal daf ñoo nax dafa dafa teel a yeewu comme da daan teel a yeewu ñu yaakaar ni bi mu sangoo pare mi ngi tëdd ndeke moom dem xale yeewu gis yër ci néeg bi rek gisuñu ñu daal di ñëw ne xaddi dem na ñu ne fu xaddi dem. te moom dafa lu. waaw dafa moom man lu wax du du dégg. dégg ma ne leen kon de xaddi day réeraat def na mu defoon kon de co dinañ duggati coono tey. <laughs> léegi ñu dem gaaraas gisuñu ko ñu dem ci laa ci laa ñëwee dem wax ko sama yaay ni ko xadi réer na fi mu ne ni beneen coono moo na a amati xanaa ma demati fa ma demoon ma naa ñëwaat fii wax ko fii ci rajo bi. Euh, woon ci biir kër gi fii ci euh, Thiès. waaw mi ngi woon ci kër gi fii moom amu fee kenn problème problème déedéet waaye moom ku bëgg rek dellu fi mu ne moom dellu rek. bu bëgg euh, delluwaat ci borom këram. waaw nee na day dellu. lu bëgg borom këram. waaw nee na day delluwaat foofu du toog fii foofu lay dellu te moom bu mënul wax bu mënoon wax du ne day delluwaat. mais moom ban problème la amoon foofu ba jóge fa dellu si waat Thiès. jëkkër ji. Mhm. ñoom dañoo wax nee na Ndiaye dafa wax nee na moom dafa. naqari daal ndaxte waaw. Mhm. dafa comme dafa muuma. mu ne dafa naqari dara day nekk di dóor xale yi di turbale ci kër gi. Mhm. mu ni moom daal mënul taroole mënul taroole loolu loolu. mu daal ma ni jël si ko ci laa ko jëlee woon indi ko fii waaye moom bëggul toog mm-hmm. te mi ngi ëmb ba diis ki démb rek laa ko yóbbu mu wisitu ji mm-hmm. te ñu ngi naan ma fi ne nii soreetu mm-hmm. mu waaw waaw moom jëkkër ji bi mu dawee fële Louga ñëw Thiès seen kër fii jëkkër ji da ko fi daan fekk si waa jëkkër ji mi ngi fi doon ñëw kay mhm. ñëw na fi ci julli gi rek fan yi looloo tax mu bëgg a dellu gis bi mu ko gisaat nii mu ñëw fi ñaari fan yi looloo tax mu bëgg a delluwaat ca moom bi jëkkër ji ñëwee ba dem amul jàmm nee na day dellu rek bu ko defee ñu nax naxal ko ma dugg fekk ko ci nii bi mu takk saagam ba def bagaasam mhm. ni ma day dem ma ni ko déedéet bul dem ndax boo demee dinaan la téye nii mhm. bul dem da ngay réer comme na nga defoon mu ni ma bu ma xëyee suba dinaa dem ma ni ko bul dem de ndeke moom loolu yëpp def na ko ci xel mi xëy rek dem. est-ce que jëkkër ji waxu ko mu delluwaat si sëy déedéet waxu ko woon naa ko moom it dafa jaaxle. jëkkër ji mu ñëwoon nekkoon fii Thiès moo ko arrangé muy ñëw di ko fi fekk. ndax pour mu nekk fii daal ak yooyu. jëkkër di ko si si di ko fi fekk si comme mu fële dafa am jafe ak waa kër ndax pour jëkkër ji ñëw fii est que jëkkër ji dina mën a ñëw fii jëkkër ji day liggéey moo tax. Mhm. te jamono neexul di baagante di ñëw fii. Mhm. moom daa xam naa ne moom bu amoon fu mu ko def dana ko yóbbu. Mhm. waaye dafa amul fu mu ko def. kër di jaayam jooju dong la nekk te kër nijaayam ñoom mënuñoo toléré ku muuma. ci biir kër gi waaw ñoom mënuñu koo taloore ndax nee nañ xadi dafa wex. loolu la ñu waxee ñu ne xadi dafa wex xadi dafa looloo tax mënuñu ko taloore te xadi moom bëggatul a toog fii bi mooy ñaari yoon mu dem. yàlla daal la xam xaw ma dana feeñ xaw ma du feeñ waaye daal ko mën a gis rek nga dimbali ñu ngir yàlla. ñu mel dafa dafa xaw a ñuul. Mhm. te njool. mu ngi yor saag bu mag sax ñun gis ñu ko waaye xale nee nañ saag bu mag la yor. te ëmb ba diis. dafa ëmb ba diis fi mu ne nii sax dugg na weeram. Mhm. xam nga bii passé Touba Mbacke lañ ko fore woon. Touba lañ ko fore woon ca ca ca ca gaaraasu Daara Jolof ba. Mm-hmm. foofu lañ ko fore woon ca boori Ndindi. Mm-hmm. benn meer a for jox ko beneen jigéen xaaju guddi la ko for nee na mu jox ko beneen jigéen jigéen boobu téye ko nee na bi ma ko foree sax nee na ay nit ñu ngi naan bàyyil kii xam na fi mu jëm nee na ñu ni ko déedéet mu ni leen déedéet kii du ko bàyyi kii xamul fu mu jëm mhm. ndekete ndaw si moom xam naa mag la mhm. li mu xalaatoon dëgg la moom xamul fu mu jëm mënul wax yow mënoo tudd Louga léegi moom fi ne bu demee garage itam dafa fi mu ne mooy li ma doon wax rek mhm. mënul wax turu Louga fi mu ne ba moom ba mu demee ba egg Touba bi mu ñibbisee fii nee na bi muy dem ñaar téeméer la fay dem dem dem Touba nee na ma sonna fa dem nee dafa dem ba àgg moom moo nettali de nee na bi mu àggee la ni si nee na moom ñëwoon na fi. dafa àndoon na jëkkër ji dem màggali. bi mu ñëwee la ni man moom demoon na Touba waaye nee na dafa defoon ni oto bi day jaar nii oto bi jaar nii xam nga loolu. xam nga ko ku mënul wax. xamul fu muy aw xamul ban oto. daa xam naa laa dem fekk oto yi rek dugg. ndax ku naan oto bi jaarul nii nii la jaar. Eh, problème bi daal moom mooy naka goro yi comprendre. waaw comme muuma la mu nga ci kër ga mais goro yi bëgguñu ko gis ci kër ga loolu mooy jafe-jafe bi. te jëkkëram bëgg na ko nee moom bëgg na jëkkëram. waaw ndaw si waaye waaye waaye xale yi. Mhm. duñ ko mën a comprendre. duñ ko tolloore duñ ko tolloore ak dafa moom moom kër ga sax noonu lay def. Mhm. waaye ñun dañuy nax naxal rek même kër ga noonu la waaye ñun dañ koy nax naxal. donc mhm. daal mu dellu si waat seen loxo ñu daal loolu lañ bëgg. a ngoog joor. léegi nag li ah mais comme dafa tollu diggante de xanaa dina neex xam la xàmmee laa xàmmee waaw dëgg la moom bu tollu diggante daal ku ko gis mhm. xam ne ay mbokk nga mi ngi Cees di ko di ko wër mhm. a gaaw ah. ma a def ah. nga ni Cheikh Anta du mënta réer Cees waaw na moom ku laajte Cheikh Anta danañ la yóbbu Cheikh Anta naa ne danaa ko élection législative yi di ñëw boo sampeen dënd moom ni nga bari député euh, benn instant billaay waxal wuyu ma wax ma yaa ngi xëy jàng ci yenn ci yéenekaay yi ñu lay wax ne la dafa am benn imam boo xam ne imam Alioune Ndao la tudd. Mm-hmm. mooy euh, secretaire général bu ligue des imams et prédicateurs bu Kaolack. xam nga mm-hmm. dañu ko jàpp. waaw anam ya ñu ko jàppee film arrestation bi. Mm. bëggoon naa la ko jox tey waaye du fi xaj waaye suba. incha allah. Ibrahima Diame. Kaolack moo ñu ko jox. Mm-hmm. dinaa la ko tegal suba. incha allah dégg nga. waaw ay ca kon jot na. ah oh, sëkk kay gisoo waxtu wi jot nii. bu suba ak jàmm. waaw dig daje suba incha allah ce sera à partir de 8h45 auditeurs yi ma leen di jaajëfal rek di leen dig daje ñoom suba 6h destination 9h ñu yendoog jàmm 6h.